salaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu noo tàmbalee kàddu yi mbër yi fa daje yëpp Cheikh Moussa Fall Falilou mi ngi bëgg a joxe ay kàddu waaye ne mi ngi ko tàmbalee ci murid yi fi daje yëpp nee ñun ñi fi daje genn kàddu rek lañ yor waaye nag ci bu neexee lay doon kii ñu fekk si di turandoo Cheikh Mouhamadul Bassir wii. di turandoo Cheikh Mouhamadul Bassir wii. di Cheikh Mouhamadul Bassir. di Cheikh Mouhamadul Bassir. moom Serigne Touba Serigne ñoo ngi ñaan suñu borom mu yàggal sa dund te wéral la. Ah, ñun murid yëpp Serigne Moussa Fall moom sëñ Modou Aminta nee na dan laa ameel bor. nee na ku daje yow ku nekk. war naa wax ak yow. war naa def ak yow. war naa jëf ak yow. ndax li nga ñu yoral ndax li nga ñu yoral ñun murit yi. te kër gun dem fekk la fa. te kër gun dem fekk la fa. bu dee murit boo xam. bu dee murit boo xam ne ak xama mat na. murit moom du bon murit moom nee na du bon mukk. day xamadi rek. waaye mi Sëriñ Tuubaa waaye yow mi nga xam ni yow la Sëriñ Tuubaa tànn. def la ngay jëwriñam. kër Serigne Touba goo dem. kër Serigne Touba mën a dem. lii def. lii mu la def. moom jëwriñu Serigne Touba ji. moom jëwriñu Serigne Touba ji. ñëpp a ko ko nangul. ñëpp a ko ko nangul. ku ŋàbb sa addiya. nee na ku ŋàbb sa addiya. yem ci Serigne Bassirou. yem ci Serigne Bassirou. ñu def ko muy jëwriñu tool bii. ñu def ko muy jëwriñu tool bii. jox ko ko rek. jox ko ko rek. dafa am kàddu goo xam ba ko Serigne Touba Cheikh xam ni ba ko Serigne Touba Cheikh Abdoulaye Mbacke daanelee. sa waajuru tedd wa ñoo ngi ñaan su borom mu dolli ngërëmam ya soo ko déggee rek xam ni nekkee. soo ko déggee xam ni nekkee. ab tool. tool. kenn waru caa def loo xam ni. kenn waru caa def loo xam ni. jëwriñu tool ba yëgu ko. jëwriñu tool ba yëgu ko. la borom tool ba xëj la borom tool ba di xëj xëj. waru caa def dara. waru caa def dara. ci lu dul. da koo yëgal. da koo yëgal. kam ni yaay jëwriñu tool bi. kam ni tool bi. kon ñëpp war a yëgoo yow. kon ñëpp war a yëgoo yow sëñ Basirou. nga xam ne ku ñëw ci yow daal. yem ci dëpp nag. yem ma buñ ko ci bàyyee. buñ ko ci bàyyee. dëgg moom Mbàkke mooy luñ dëgg nag Mbàkke boo ko déggee. mooy luñ ca xam bako ko. dong dong nag. waaye suñ ko ci waaye soo demoon ci église ba. waaye nee dëggal alxuraan. duñ waaye du tee alxuraan dëgg. doon dëgg. te fekk des ko caa bàyyiwul rek. fekk des ko caa bàyyiwul rek. waaye ku ca bàyyi wax nag. waaye ku ca bàyyi lii sëñ Moustapha wax. dëgg la wax dëgg la wax de nee na. ku ko nangu ak ku gàntu. kon nag ci turu. kon nag ah, kenn ngi taxaw. kenn ngi nii taxaw. nekkal ñu fi. muy sëriñ Daam Sooda. di rakk joo xam ni. bis bu nekk. nga gis rakk joo xam ni. la daal Cheikh Bassirou ko dal day am rakk joo xam ni. am rakk joo xam ni. day sonal day sonal mag ya. day sonal mag moom moo dox suñu diggante. nee moo dox suñu diggante sëñ Daam Sooda. fi ne noppaluwun danoo sonal. danoo sonal lool. kon nag bu ñëwee fii. ñu tànn ko ca kër Seex Ibra Faal mu ne fi loolu doyoon na sëkk képp lu nu wax lu nekk moom lañ ko waxal moom itam lu mu wax ñun ñi la ko waxal lu mu def fii ñun la ko defal waaye lu def fa nekk fa nekk ñun moom lañ ko defal kon Seex Mamadu Basiru Mbàkke ci turu sëñ Falilu Faal sa xarit ba di sab soppe ab soppe moo gën a for xarit. di sab taalibe nag di ak tuur kilifaam ga. ak tuur kilifaam ga. Serigne Cheikh Fall. moom sëñ Modou Moussa muy Serigne seex Ndiaye Mbeng ak turu ka nga xam ne nag. lu waay def ci bis bii. moom nga ko defal. muy jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall. Cheikh Modou Moussa Fall. Serigne Amdi Fall. moom sëñ Modou Fall Mbenda. yàlla na suñu borom yokk seen dund yi nag. te wéral leen. mi ngi lay siyaare ci bis bu tedd bii di ñaan yàlla sunu borom Cheikh Mamadou Bassirou ab jaam dey mën la am lu weesu lam bëgg lépp kon sëñ Bassirou mbakk li nga bëgg lépp yal na nga ko am lool rek lan la mën a ñaanal ñun murit yii seral nga sunu xol guy dalal nga sunum xel sunu njortu rafet na bu wér a lii nga ñu ngëbal ngëb ko bu dër suñ diggante ak sëriñ bi yàlla loolu yàgg ci yow ki la dénk alal ji yàlla nga làq ngërëmam waaye ñun murid yi nga ko yoral it yàlla nga làq suñ ngërëm ngërëmul murid yi baax na yàlla nga ko am mbàkke nee wax ji day bañ muy dem di dem rek nee lii mu wax murid bu leen neexoon nuyoo daa jug dem nee yéen lay yéen la waxal wax ji bu ko kenn sonal ci dara ñoo ngi sant bu baax mbàkk tey gërëm waaw ak saa waaw Cheikh Moussa Cheikh Bassirou nee na xanaa kon ñu gën leen sant bu baax a baax rek ci Pastef yi sa yitte jëpp di yoon wi nee surtout maam Cheikh Ibra Fall sa maam nag noonu rek la war a mel wàccu leen yoon wa de yéen a ci guddi ak bëccëg liggéey yëpp fajar dana ko fekk. dina leen fa fekk. ba guddi ba guddi. amul leen dara leen lenn ci seen bopp. Sëriñ Tuubaa rek ko am. Sëriñ Tuubaa rek moo ko am na kon. waaye yéen tamit nag tawfeex jure ngeen am. ndax koo xam ne li génn bëgg rek am. soxla woo leen lu dul sëriñ bi. mëni su ko weesu. kon yàlla ngeen dajee ngërëmam. mu yàgg lool. ngeen yàgg ko fee jiite. ci barke Sëriñ seex Cheikh Ibrahima Fall. amiin. nee na sant yéen mbokk Baye Fall yi sëñ Bassirou nee na sant na waa Kër Cheikh Fall lu loola. amin amin amin Mbacke waaw waaw amin amin